plumette a utilisé euh, un soir de nuit noire euh, maanaam maan si amul euh, ay étoile bu clairul maanaam bu lëndëmee lëndëm il faut pas que ngeen jaawale lumière du de, de la ville ak lumière u asamaan bi aussi bu lëndëmee donc il faut utiliser sept brins d'allumettes en même temps sept brins yi ngay jël après li ci des da ngeen di ñëw inbox whatsapp ñu wax leen mode d'utilisation mais je. jot ndeyu lii <laughs> Hmm, seen turu copain bi nga xamante ni moom lañ bëgg mu bàyyi xel ci ñoom après ñu def vœu ñu ñaan si ñu ñaan si lu ñu bëgg par exemple ñu ne dañoo bëgg jiw xelam bi di nekk ci man muy def lii lii ñu ñu ñaan si daal après ñu sànn ñu taal ko def ko ci ndox bi ñu bàyyi ndox bi mu fanaan ci kaasu ndox bi dañ koy bàyyi mu fanaan ba suba buñ ko bàyyiwee mu fanaan ba suba buñ xëyee ñu diwoo ko buñ ko diwoowee nañ fexe nag ba dégg kooku téléphone il faut ñu téléphone allo. allo oui. ça va. waaw ça va. alhamdulilah. Uh-huh. waaw alumette daal naa ci mooy alumette alumette bi nu muy demee moom. alumette yi kii la. Hmm, pédélation à distance wala boo bëggee récupérer euh, sa ex sa couche. soo ko bëggee récupérer quoi. waaw. mais dangay day ou bien il faut nga jegante moom. waaw su nekkee à distance la moom mun nga ko def su nekkee mu ngi fi aussi mun nga ko def fi à ça dépend rek yaay xool. mais affaire bi nu muy demee nu muy defee nu muy demee carrément. da nga koy jënd da ngay jël sept paires boo ko jëndee nga xool ko ni pour une nuit noire mooy ni asamaan si amuloo biddew. ni ni boo gisul ak étoile. Mm-hmm. comme démb démb asamaan si amul étoile. Mm-hmm. wala benn étoile moo génnoo étoile buy ànd ak weex bi. waaw. yokk lu si des. parce que yu rouge allumette yaa ngi nii bii moom euh, ñaata laa koy jaayee bi 10000 lay jar parce que yu rouge yi moom temporairement lay xalaat ci yow mais yu bleu yi nii moom da xalaat toute la journée xam nga te bii nii moo ëpp sax yaa ngi gis mu ngi nii 38 lay def waaw danga koy xosi rek daal di koy taal mu daal di lay xalaat waaw kay seen kër di